léegi gis nga euh, te man wàllu politique li ma si faral di wax bëriwul. Mm-hmm. parce que nag tey am na ñu ànd ak Macky ñu ma sopp am na ñu ànd ak Sonko ñu ma sopp mm-hmm. Mm-hmm. moo tax tey boo fekkente ne da nga nekk ndaw waaye yàlla def la kilifa danga war a fexee tëddee njaaxaanaay moo tax yu bari du ma si bëgg wax mais li ma si mën a wax daal mooy Sonko moom ay ay nitam nañu ko dimbali nag si jamono ji mu toll nii waaw parce sonn na trop sonn na torop de waaw mhm. ah, ay nitam nañ ko dimbali bu baax a baax a baax bu baax yaa ngi fàttaliku bi ma la koy wax si Bamba mhm. Mhm. Fall bi ma la koy wax si jamono élec si jamonoy élection boobu noonu man la dafa tawat te sonn na trop ba wax ba tuddal nag bu ñuul ak leneen ak leneen ñu ko waroon defal ñoom woo nañ ma ñëw nañ sama kër de parce que xam nañ ne li ma leen wax dëgg la mhm. dafa tawatoon mhm. te xam nañ li si nekkoon lan la mhm. kon su ma la waxee lii si Sonko rek ko nga takk ko téere ndax dina bokk mais man balaa balaa dina bokk non bàyyi ko mu ñëw foofu may ma wax sa di nga wax saraxam ba pare ndax dina na nga ne Sonko dafa sonn trop jamono ji non nañ ko dimbali ba pare xam nga bala ngay bokk lan lañ koy dimbalee bala ngay bokk day fekk nga am wér Mhm. te beneen bis laxasu mooy mhm. ñi taxaw si yoonam mhm. ñi taxaw si yoonam ak ñi gal gal li nga xamante ni moo jëm si wàllu bokkam ak ñàkk bokkam ñi si dem ñëpp ak ñi si dugal loxo ñëpp nañ jóg seen bopp ndax ku si jugul sa bopp ba mooy doo ko fekkee moo ànd ak moom wala beneen camp déedéet ñeneen mooy camp adverse bi ñi nga xamante ne dañuy dox si diggante Sonko bañ bokk nañ jóg seen bopp ndax ku si sa bopp doo ko fekkee ñoom moom doy na léegi moom sonn na de. mais ñi taxaw si kanamam itam ne du bokk nañ jóg seen bopp ku si jógul sa bopp doo ko fekkee ak koo mën a doon. léegi hmm? moom man maa la wax man ànduma Sonko. ànduma hmm. Macky man li ma xamante ne moom la moom laa xam. Hmm. te moom laa gis moom laay wax. Sonko ni ngi wax ni li ci bëri ay mbiram ay baatin la. am na baatin bu wóor sax. rawatina baatinu jigéen waaw hmm? ah, Sonko dafa am baatinu jigéen hmm. te moytul ma baatinu jigéen kilifa bu jigéen bu am baatin sonk da ko hmm. am kilifa bu jigéen bu ne si ginnaaw mais am na ñaan aussi bu baax bu baax sax Sonko ñaana ko tee ba léegi ñaana ko tee ba léegi de waaye na gën a jóg si boppam guddi yi mu toll nii parce que sonn na mi ngi si diggante du ndax dee dafa sonn ngan mooy saraxam pour waa Pastef bu ñu la bëggee seet xam <laughs> ni ko defalee woon Bamba Fall xam nga sarax bi gàtt na gàttul song fu mu nekk du ndakaaru mhm. liñ ko def mhm. biir ndakaaru lañ ko def defuñu ko feneen furul ndakaaru ndakaaru nag nii la dama lay jox ay code rek mhm. nii la CI plus des quatre îles Mm-hmm. fa lañ ko def <laughs> sëñ Babacar fii doo fi ñëw moom di joxe ay code euh, yu leer naa ñi ngay joxe fii doo fi ñëw di joxe ay code mm-hmm. ñëwal rek ah, xam nga Signe Plus la mm-hmm. dafa am île de Gorée île de Yoff île de Serpent ak ban île Ngor Ngor mu nekk siñ Plus boo xoolee quatre îles yëpp dañu jàkkaarloo ñaari îles yi ce sont des îles à fréquenter mais yeneen ñaari doo gis ku ko fréquenter yaa ngi may dégg gis nga nii fas la Sonko fas bi ñu ko def mi ngi si diggante ñeenti li koy dindee ngi biir Ndakaaru nag foo côté boobu foofu laa si yam ndax mën nga koo dindi waaw ah, si kàttanu yàlla ak mbaaxam waaw moom danaa waa Pastef yi ñu koy dégg <laughs> ki mën a faj Ousmane Sonko ngi